jërë ngeen jëf seen ànd ak ñun ci seen portail d'information www.senclic.com Senclic TV yéen ñu ñuy seetaan un peu partout dans le monde ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm ci seen émission édition spéciale comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk di ci dalal ay ndaanaan tey nag ñu dalal ci koo xam ne nit ku ràññeeku la ku am taxawaay euh, ci Kaolack euh, sur le plan politique mais aussi. ci li nga xamante ne nii tey moom mooy responsabilité bi nga xamante ne am na ko ci mairie Kaolack bi donc muy wuyu ci Baba Diack nekk responsable des équipements marchands et des recettes donc ci wàllu woowu nga xamante ne nii am na ci taxawaay mu fës ci trop euh, ci lañ ko fas yéene inter vive waxtaan ak moom ci taxawaay bi nga xam am na ko waaye ci solo su liggéey bi nga xamante ne nii mu ngi koy def mu nekk jàmbaar am ci taxawaay bu am solo solo solo solo solo te euh, mu am ay xew-xew yoo xamante ne nii donc nag dafa xew euh, ci ñaari weer yi ñu génn donc moom mu am ci taxawaay bu am solo donc diggante commerçant yi diggante marché bi commerçant yi ak mairie bi donc moom mi nga xamante ne mooy Baba Diack euh, moom la ñu dalal ñu fas yéene ci waxtaan ak moom waxtaan ci li nga xam ne tey laal na li nga xamante ne nii moom mooy li nga xam ne mooy poste bi nga xam ne occupé na ko ci mairie bi. Baba Diack maa ngi lay wax bonjour et merci d' avoir accepté notre invitation donc di la bàyyi ak suñu internautes yi nga xamante ni tey ñu ngi lay seetaan à travers ci suñuy plateforme di la wax jërëjëf et di la nuyu bàyyi la ak suñu internautes yi. waaleykum salaam Souleymane maa ngi lay nuyu di leen di fay di leen di dalal ak jàmm donc di kontaan si euh, invitation bi di rafetlu bu baax euh, liggéey bi ngeen di liggéey bu am solo bi di nuyu mbokku Kaolack yëpp. rawatina waa Sénégal eh, di ñuy population Kaolack di sargal suñu maire Serigne Mboup mi nga xam ne moo nekk fii ci bopp mairie bi te teg fi ñuy liggéey ak ñi nga xam ne ñooy collaborateurs yi di rafetlu bu baax eh, li nga xam ne moom mooy eh, jotaay wi ngir ñu partager li nga xam ne si loolu lañ nekk di yëngatu jamono yi merci. Euh, baaba Diack tey yow nga nekk responsable des équipements marchands et des recettes fii ci mairie Kaolack nga am ci taxawaay boo xamante ne nii bu fës la taxawaay bu am solo aussi ñu bëgg tey li nga xamante ni tey moom mooy équipement marchand et des recettes pour faram-fàcce ko mu leer ci bopp ñi nga xamante ni tey mooy bopp Kaolack ak ñu ñuy seetaan tey sooñ ko doon faram-fàccee sa taxawaay ak sa responsabilité ci mairie bi donc lan nga koy tënk ci wolof ñu gën a xam lan mooy recette. tey ci ku dégg recette rek dina xam ne mbiru koppar la ci li nga xamante ne ni jëm ci marché bi ku dégg maanaam li nga xam ne tey poste bu am solo la donc ci ci mairie bi moom nga taxawee tey nan nga ñuy faram-fàcceel jox ñu quelques explications par rapport ak ses responsabilités ci marché bi. soo ko déggee mooy lépp lu jëm ci euh, mbirum place jaayukaay ñu mel ni marché donc Kaolack euh, umpale wuñ ne am na fukki marché ak ñaar mais benn marché bi mooy marché au Euh, euh, bokkul ci suñu euh, gestion gestion mairie bi la mais dafa am comité de gestion boppam mais marché yi nga xam ne ñoo ci des muy onze marché yi muy marché central marché portable marché centre centre commerciale bi marché zinc marché géej ak syndicat marché Médina marché Ocas marché bu ndaw marché parcelle marché kibel marché yooyu yëpp dañoo nekk ci suñu suñu ko gestion ñun ñoo koy ñoo koy suivre alors euh, li ñu si war mooy xool marché yi jafe-jafe yi nga xam ne moom la am parce que monsieur le maire ci xarañam xalaat na ne bu tegee euh, benn service boo xam ne mooy saytu marché yi dina permettre ñuy mun a xam nan la ñuy organiser marché yi organisation boobu nag dañ siy jublu si seen euh, dëkkuwaay parce que fa ñu nekk war na nekk set bu normal war nañ organiser wu si ni ñuy organiser seen cantine ak ni ñuy placer seen bërëb yi seen wàllu toilette yi seen wàllu éclairage sécurité ak euh, lépp loo xam ne moom mooy jumtukaay yi ñuy soxla en général si li ñuy liggéey loolu nag euh, monsieur le maire si la créé euh, direction bi mettre en œuvre pour ñuy mun a def suivi bi alors loolu nag xam nga soo koy wax marché il faut nga wax recette alors te recettes yi si ëpp si yi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéey mu ngi ci biir mu ngi ci biir marché yi donc recettes yi c'est juste que ñun dañuy xool fan la niche de recette yi nekk ak fan ak fan moo war a génneel mairie bi xaalis ñu dem ci ñooñu defal leen ordre de recette après ñu dem fay perception donc loolu moo nekk li nga xam ne moom la ñuy liggéeyee fii ci mairie bi. dégg ngeen ko noonu donc bi ngeen arrivé ci maire bi ba léegi ñetti ngeen am fu ngeen fekk ci ngeen am fu ngeen fekk budget bi ak fu ngeen ko yóbbu donc bu ñu seetloo ci ñetti at yi ba léegi bi ngeen fi nekkee chaque année donc budget bi nga xamante ne mooy budget Kaolack dafay yokk tey ñu ngi ciy dégg bi nga xam ne moom lañ doon dégg yow nga nekk ci wàllu recette nekk tey ji euh, suñu la doon laajte wala boo ñu doon wax tey ci xayma ci li nga xamante ne ni mooy budget wala soit mooy recette bi nga xamante ne tey moom la Kaolack di génnee par jour. bi euh, le maire bi mu ñëwee daf ko fekk ci 4 milliards mais nit bu ñu la dénkee dara balaa ngay euh, dem di defi budget da ngay def étude maire dafa def euh, étude ut ay agent yóbbu leen ñu def recensement ak def diagnostic xool fan ak fan moo nekk foo xam ne nit ku fa toog da nga war a fayal fay mairie def information ak sensibilisation <coughs> pardon parce que nit ñi ñu ngi woon toog seen place yi di jaay mais mosuñu xam ndax dañu war a fay recette ou bien waruñu fay recette ñenn ñi aussi xamuñu woon lan mooy tax alors il a fallu ñu agents yi déployer leen ci terrain bi maire jël euh, jeunes yi euh, recruter leen benn période ñu def euh, recensement le tour de la ville ba informer nit ñi recenser aussi fépp foo xam ne niche de recette la donc loolu bi ñu ko defee ba pare. daf ñuy jox au moins ñu am xayma xam fan nga war a jëmmale sa budget parce que budget aussi nekkul xaalis bu ñu lay jox nii nga téye ko léeg-léeg nit ñi dañu foog ne su mairie bi ne am na budget 7 milliards c'est parce que xaalis bi dafa nekk ci benn coffre wala mu nekk ci benn compte saa yu ko neexee mu tibb alors que demeewul noonu da ngay def sa euh, gymnastique xool sa budget bi nga xam ne moom nga estimé ne man ci at bi si li ma bugg ci fonctionnement ci li may liggéey li may fayee salaire yi li may def fayeel courant courant yi nekk pot lamp yi si mbedd yi parce que xaalis nit ñi di fay moom ngay gis lamp yi tàkk moom lañ leen di fayee facture yi ndox nekk si yenn bërëb yi nga xam ne ay édifice public moom lañ koy fayee moom la ñuy jëlee di ci fay yenn gardiennage yi nga xam ne mairie moo ko jël en charge moom lay jëlee léeg-léeg nit ñi wax problème mu inondation si lañ koy defar lépp loo xam ne nii mairie bu ngi koy fonctionner nit ñi di ko ci o si loolu lañ koy lañ koy defee mais nekkul xaalis bu toog ba pare ñu koy jël suñu ne la budget dañ ne yóbbu nañ ko ba huit milliards donc maintenant mairie bi mooy dem xool ci taxe yi muy feyeku muy impôt yi muy feyeku si yooyu lay basé wu maintenant di mun di régler problème yi état par étape moo waral des fois mu am programme bu nekk si biir budget bi ñu war ko def mu am retard parce que dafa am fu muy jaar bañ jël ko ñun nag léegi si biir loolu recettes yi nga xam ne moom la ñuy dem di xool yi di leen defal titre de recette dafa am beneen service bu ñuy wax perception mu nekk service bi nga xam ne moom lañ wax ne suñ defaree ordre de service yi bay xaalis bi ñu war ko jëli ñoom ñooy dem defi recouvrement bi te ñu bëri gis nañ agent yooyu ne ñooy ñëw ci ñoom pour def recouvrement bi ñooy def recouvrement bi jox na sa quittance si foofu nag maire su soxla lu mu war a def si budget bi dafay def mandat bu defee mandat demander perception perception receveur percepteur municipal def étude moom it xool ñu koy laaj ndax méngoo na ak liñ ko wax ne ko si li nga am droit war a joxe moom it mu jël ko def euh, loolu su dee ay problème mu marché la aussi euh, comme ni ko nit ñi defee fii mairie amul gré à gré euh, toujours dafa am benn service benn service bu yore marché yi mais aussi dafa am aussi pole des marchés benn commission spéciale ñooy réunir lancer marché bi ni ñu ñëw uyu ñu xool ki gagné marché bi duñ xam sax des fois suñuy lancer marché duñ xam kan la ñoom voilà donc ñu ñu lancer waat mu dem su fekkee ku gagné la après yow yaay dem suivraat def projet bi ni nga ko ni nga ko war a defee voilà comme ça que ça d'offre boo xamante ne ni benn inconnu gagné ko souvent donc dangay dégg appel d'offre après gis marché yi démarré doo xam kan la. mais chaque fois bu ñuy def marché tu vois que des gens xam ne yow xamoo leen sax mosoo leen gis sax mosoo xam sax nañ ñi yore nañ entreprise mbala des fois nga am ñoo ci xam alors mais euh, ñu ko ŋànk dafa nekk ay nit ñoo xam ne euh, dara këfu leen c'est des gens sérieux travailleurs ñoo nekk di gérer loolu nga xam ne mooy entité boobu noonu et ñi nga xam ne ñooy gagné marché yi en général. ñoom seen bopp euh, defe naa ñooy nekk témoin ci procédure yi ñuy defee marché yi euh, dama la jox exemple rek récemment am na entreprise bu gagné li nga xam ne mooy marché oto euh, yi nga xam ne maire ànd na ko fi mais ñun amuñ benn relation ak marché ak ak entreprise bi te pourtant maire ci boppam mu ngi am entreprise boppam mais bi ñu ñëwee gars yi teg entreprise boobu moo ko gagné mu jël marché bi livré ñu suñu ay matériel donc gré à gré amul ci mairie bi donc fii moom c'est la transparence mais aussi Baba ñu wax ci opération des de désenclavement du marché centrale de Kaolack tey ñu gis ci nga am ci taxawaay bu am solo Euh, ci li nga xamante ne ni tey euh, xew na fi mooy ci aménagement voirie yi tali yi ak yooyu euh, mun am nag xew-xew boo xamante ni am na ci mu nekk coow diggante commerçant yi commerçante yi ndax loolu ci mairie bi la jógee wala soit décision la boo xamante ni c'est national parce que nemmeeku nañ mu am fépp ci quatorze régions du Sénégal soo nee Dakar gis nga li xew Colobane déguerpissement bi fa am waaye Kaolack commerçant yi commerçante yi dañu jàpp ne maanaam maire bi mairie bi daf leen jaay doole te yow nga fësoon ci loolu ak ci sa responsabilité dëkk bu nekkee dañ la kaa dénk am na lu waa dëkk bi di xaar ci yow waa dëkk bi nag ay entité la ñii ay commerçant lañ ñii ay ouvrier lañ ñii administration bi lañ ñii population bi nga xam ne ñoom ñu ngi nekk seen kër yi di am yeneen ñuy dox kenn ku si nekk nag bugg nga soo jógee di doxi sa soxla nga doxi ko si jàmm ak ci tranquillité ak confiance en sécurité ku ci nekk aussi ba nga bu nit jógee di la set si sa kër mu ñëw ci sa kër te bu am benn jafe Euh, boo xoolee tali bi nga xam ne si la nit ñi di dox ñi initier tali xelaat oto xalaat euh, moyen de locomotion yi muy avion muy muy oto muy train dañoo créer ay voies tracer voies yi d'une manière boo xam ne ku ci nekk booy dem ci sens bi ngay demee bi nga ci dem te doo mbëkkanteeg sa morom def code de la fexe ba ñëpp ci oto ñoo bokk benn code bi ñiy dawal vélo ñiy dawal sareet képp koo xam ne da war a tegu ci kow tali rek ba ci nit ñi sax dañ bokk ci code bi yow nit bi fii ngay dox soo bëggee traversé fii ngay traversé ki nga xam ne nag mooy dawal ci côté bii la war a dawee buy dem nii buy wiñeeku nii la bu yegsee fii nii la def donc tu vois que ne loolu su fekkee def nañ ko ba pare ñu tracé ko alors à la place fi ñu war a dawee ñu dem di def constat que ne am na ay nit ñuy jël place ba di fa toog fi oto bi war a daw nit a nga fa teg taabulam fi saret war a jaar nit a nga fa teg taabulam fi nit ñi war a dox nit ñaa ngi fa jël lal fa oto bi war a ñëw gaare seere pour doxi soxlaa mu ngi am problème y a un problème extrême pourquoi parce que bu nekk kenn ku nekk defee lu la neex kenn du am lu la neex te yow mu ñu ñëw di lal <coughs> fi ngay lal je pense que bu fekkoon ne espace boobu noonu leer na la fi ngay teg sa taabul pour dem ba ak moo ne yaa ko moom ba mu jaral la bu ñu la waxatee ne jëgal sax da nga naan dañ da ngay kaas parce que da dem ba foog ne yaa ko moom bu fekkoon ne place boobu nekkoon na place bu ñu la jagleel bu yàgg kon fekk na nit jël na ko ndax ay commerçant jiitu nañ la fi gis espace bi mais ñemewuñ ko laal ndax xam ne place bii ñuy ñëw di jël am na lu ko fi bàyyi mais yow boo jógee fa la yegg si jël ko rek mooy sa mata feeñ na te loolu aussi euh, dans un pays bien organisé donc xaw ma de mais Sénégal je pense que disposition yooy taxaw nañ c' est pas parce que état moo ko jël décision parce que ñun depuis ñu yegg si à la tête de la magistrature li monsieur le maire def mooy créer un plan organisationnel pour li nga xam ne moom mooy les voies de communication fépp fu nit war di tox nañ ko xool fu nit war a toog nañ toog amoon na ci benn yërmaande sax ba mu ci def ñi nga xam ne da nga leen ñu toog xool leen ni ñu toogee bu fekkee fañ toog ni ñu defaree dafa ñaaw mbala dañoo dégager ba mu ëpp ngeen fexe wax leen ñu rafetal ko dem na ba si jaaykati fruits yi nekk ci route nationale bi bi ñu fi ñëwee daaw xool leen gis ni ñu toogee def ay mbaar yu ñaaw dama leen convoqué fii réunion bi ñu ñëwee ma ne leen ce qu'il fair mooy nit ñi dañoo soxla fruits bi te ñiy tukki ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi dañuy toog ba ay yenn heures sax foofu lañ mën a jëndee fruits comme fii Kaolack habitué wuñ ci biir quartier yi ak ci yenn alimentation yi ñu fay def fruits yi yéen dañu leen di organiser malgré fi ngeen nekk c'est pas obligatoire mais nee amee na ngeen organiser boobu leen déranger piétons yi nga xam ne ñu ngi jàll ak ñu dëkk ci weti mbedd bi ñu wax leen dañu def ñoom ñëpp benn couleur design def bâche aménager seen ski stand yi ba mu rafet ils ont apprécié non seulement def nañ ko mais fekkuñu leen woon sax ñuy fay taxe ñu wax leen taxe yi ñu war di fay mensuellement ñoom ñëpp ñu adhéré am seen carte abonnement di fay mensuellement peinture ko ñoom ñëpp en bleu ñu niroo benn couleur design donc boo leen xoolee da ngay gis ne lii ci na hygiène bi aussi si côté ñi nga xam ne ñooy jaay dibiteri yi pousse-pousse forcaay yi xam naa consommateurs yi danañ kaas boo leen tuddee ñu oyaat leen convoqué leen waxaat ak ñoom ci hygiène bi nañ ut butéel def ci eau ak ndox teg ko seen wet dañuy manipuler xaalis di manipuler li lekk bi donc nañu di def loolu fexe di laal toujours ndox bi avant que ñuy jaay nit mun a am tuuti hygiène ñu wax leen aussi à l'avenir dina jéem a xool nan la ñuy def ba ñoom ñëpp ñu niroo design ci seen pousse-pousse donc nga xam ne organisation boobu dafa war ci biir dëkk bi là à un moment donné réclamation yi bëri na avec euh, les commerçants à l'intérieur du marché les populations yiy dox di ñëw ci marché bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu dëkk ci marché bi war a dem di ñibbi seen kër yi te duñ mun a ñibbi dama lay jox exemple immeuble lamaraana bi nekk ci angle Matlaboul Fawzeyni am na période avant ñu koy déguerpir yow boo fa ñëwee bu nga dox sax doo dox ñoom ñi nga xam ne ñooy jaay xajalante wuñ sax ba bàyyi place bu nit ki war a jaay pour jënd jaar pour jënd. alors benn instant commerçant yi ñu ngi loué foofu ay boutique di fay ay deux cent mille ñi ay trois cent mille war a jaay di fay patant ay cent cinquante mille deux cent mille. yow sa oto day ñëw di wàccee sa marchandise du ko mun a wàccee sa client day ñëw bëgg a jënd du mun a ñëw jënd day bàyyi des fois ba yenn heure yi sax mu ne xaaral ma daw jënd ñi fay toog 5 di du matin ba 21 heures dañuy bëgg a occuper mbedd bi alors ñu dëkk ci immeuble bi amatuñu vie de famille da ngay xëy bëgg a liggéeyu sa buntu kër nga fekk ñu teg fa ay bagage ba ci biir kër gi sax dañu fay dugal ngay génn doo mun a génn di kërti kërti sa oto doo ko gaare foofu parce que sinon doo jàll une fois benn daam foofu nee na ma yaayam feebar na fa oto ñëw war koo jël si ambulance bi mais bi ñëwee oto bi munul munul jàll dañoo mujj ñëw jëlee yaay ji ci biir immeuble bi di ko wàccee pour jël ko dugal ko fàngaaral kon nga xam ne yaa problème donc nit ñi su ñuy jaay ci yenn zone yooyu seen intérêt la ñuy seet ku si nekk rek yaa ngi xool foo jaayee mu jar nga def sa poche nga dem sa yoon la preuve en est boo ñëwee des fois da ngay fekk ñu sànni fa seen reste yi mooy ndesitu légumes yi nga xam ne xolli nañ ko mbala bugguñ ko bàyyi ko ci mbedd mi mbedd mel musiba bu kenn xamul benn côté jaaykatu jën yi toog fa teg fa seen ay jën ba mbedd côté boobu dafa saxee ci angle bi ba yow boo fay jegee xet bi dalay sonal alors que ñi dëkk foofu noonu la leen xet bi di loree ñoom ña fa nekk 24 heures sur 24. alors loolu est-ce que dañ ko war a bàyyi seetaan ko loolu mairie sax bu jógul population bi ni ñuy toppee di kaas suñu koñ bi suñu mbedd bi suñu làmp yi mais noonu la ñu war a jógee ñoom seen bopp sax ñëw xeex moo tax après bi ñu amee étude xool. que ne lii dañ ko war a defar xaaruñ sax population yi wax ñu ñu def suñu plan d'action travailler si en collaboration avec le préfet qui a euh, sué corps et âme le maire joxe ay idéem ndax moom yàlla daf ko may dafa xarañ ci côté boobu xalaat ne bu ñu leen jël sànni leen nañ ut fu ñu leen recaser dugal leen fa mu sant ñu ñuy xool di xool ba gisal ko espace ñu signaler ko espace mu xoolal boppam mu ne c'est bon je loolu moo indi bi opération ànd ceeg euh, les autorités commissaires ak ñeneen mairie bi jóg jël artillerie ñu taxaw ci def ko. d'ailleurs dañ leen a avertir à temps informé nañ leen un mois avant convoqué leen réunion préfet toog ak ñoom ñun ñëpp ñu toog wax leen li ñuy def quelque jour après deux semaines ñu ñëwaat envoyé waat suñu agent yi sur le terrain ñu informé waat leen bi mu desee une semaine ñu xamal leen ne dans tel jour di dans tant de jours. jour tel jour yi dañuy ñëw def opération bi bi mu jotee on a constaté que le message était bien reçu parce que ñu si bëri bi ñu ñëwee fekk nañ leen jaayuñu mais bi ñu ñëwee fekk nañ ñu bëri dinañ seen balaa mais am na ñoo xam ne dañoo bañ wane ne ñoom dañuy résister alors boobu nag bulldozer yi taxaw nañ il fallait que gars yi dégager. dégagé bi nag def nañ ko mais suivi bi lañ nekk jusqu'à présent. mooy ci côté avertissement bi ak information bi parce que am na ñoo xamante ne nii ci ñuñ jot a ne nañu information amul dañu xëy rek maire bi ñëw te xam naa ni donc naam sax loolu ku ko dégg da nga xam ne donc état du fonctionner noonu mais tey ji euh, Baba Diack ci côté euh, aménagement boobu nga doon wax donc dégg nañ ci bi ngi leen jëlee ci bërëb bi ku ci nekk wutal ngeen leen marché mais tey ji tey ñi nga xamante ne nii tey Euh, jëlee ngeen leen fi ci ñu nekk ay responsable nekk ay parents de famille di taaba taaba et tout souvent dañuy faral di wax ne euh, maanaam est-ce que jëlee gi ngeen di jëlee arrangé na sax naam parce que kenn du ko cautionné toog ci kaw tali bi di jaay ndax wóorul pour des raisons de sécurité mais tey est-ce que tey prévoir ngeen leen feneen fi nga xamante ne te ñoom ñëpp dinañ fa dinañ fa mën a nekk di mën a def seen euh, activité normale commerçant la te xam na commercant balaa moo jot marchandise lu bëri lu mu siy daj ñenn ñi am nañ chance am seen xaalis bopp mais par contre li ci ëpp dañuy lebi banque mala ñu leb marchandise ñu jox la ne la jaayal nga indi ki la jox bu la joxee ne jaayal boo ñëwul indi prochainement dootu la jox te bu demee ba nga def ko ñaar ba ñetti nit kenn dootu la wóolu mu yàq sa liggéey te mu gis ne li ci ëpp ay ndaw lañ ay jigéen ñoo xam ne dañoo jog pour góorgóorlu le maire a jugé nécessaire bu ñu def éclaircissement bi moo waral affaire bi jël temps depuis 2022 ñu ngi ciy raam mais il fallait que site bi ñu aménager ko comme il le faut alors bi ñu defee aménagement site bi ànd fa ak euh, préfet waa mairie bi le secretaire général ñu ñëpp ñu dem ñu xool bi ñu xoolee on a constaté que le site est bien fait on a tellement dépensé ci site bi alors même y a des personnes yoo xam ne ay personnes de ressources lañ mais dañoo contribuer sax ci aménagement bi pour bëgg a jàppale Kaolack alors on a fait cela biñ pare lancé affaire bi dañ leen wax ne leen soo leen pare yéen ñëpp suñu jógee fii dem leen ci site bi ngeen rejoindre ko ñu jël fii suñu équipe euh, de recette envoyé leen foofu ñu dem fa toog fa teg fa seen bureau installé ko fa ku ñëw ñu enregistré la jox la numéro neel demal nga teg nga jàpp sa place ñoom ñëpp vraiment ñu si bëri ñëw nañ mais am na ñeneen ñoo xam ne dañoo wax ne affaire bi du continuer bëreet la rek donc ñun aussi comme xamoon amoon nañ plan d'action il fallait que ñu continuer ko di ko suivre moo waral suivi bi amul arrêté wul ba léegi jusqu'à présent si suivi bi lañ nekk allégé na parce que ñoom bi ñu commencé ñëw def nañ seen ay seng installé nañ maire fekkoon mu nekk voyage voyage bu sori nekkoon di def ay tour voyage bi mu retourné see bi mu yegg see kaw la li mu njëkk a def première heure am mooy dem visiter site bi bi mu ñëwee taxaw xool gis site bi apprécier que ne vraiment li wane na ñii bëgg nañ ñëw liggéey si moom yàlla ko may loolu fi mu taxaw la am vision que ne war nañ ko mun a gën a améliorer il a proposé un investissement de trente million affecté chambre de commerce pour ñu defaral ko loolu pour mu gën a gaaw ndax bu nekkee dañuy toog mairie defar ko dafa mun na yéex chambre de commerce noonu lañ démarré activité mooy li ngeen di gis nii image yi ngeen di gis nii alors euh, moom si la ñëw ñu ne dañ ñoo defal ay dal mu nekk ay voies de euh, comment dire piéton espace yeneen ñu defal leen ko ay cantines yoo xam dañ koy fermer defal ko mbaar mu bañ a am soleil ak bañ a am kii ñu def éclairage def toilette fermé ko nag mu am ay porte installé fa sécurité de ce fait ña fa nekk ñu créé benn comité de gestion boo xam ne mooy gérer affaire bi en collaboration avec la mairie et la chambre de commerce chambre de commerce aussi mairie wax leen ne nañ leen accompagner ñu uf ñu formaliser leen ñu am ay papier registre de commerce ñoom ña fa nekk di jaay yëpp ba pare aider leen ci ay financement ci li nga xam ne mooy seen liggéey donc defe naa ne euh, Kaolack defe naa jël na pay jël na pay li tax mooy booba léegi ñu ngi dégg ñuy Euh, dàq ay ambulant di leen di euh, dindi mais amul kenn ku si def li sëriñ boobu dafa gum te ambulant bi amul benn prérogative bu mun a wax ne fi ma toog nii boo ma fiy jëlee da nga may teg l'ambulant n'est jamais officiel je le redis amul benn prérogative ak benn texte bu ko ne boo toogee fii amuloo lu la fi teg da fi jóge yaa ko moom non non non loolu nee naa la bu deekee ñëpp noonu la ñu doxee ñun ñëpp yeboo ñu ñëw samp suñ kër si mbedd yi te xam ne kenn du ñu yëkkati kon kon donc ñoom nañ xam ne boo jëkkee teg sa benn fenn sa bopp te kenn tegu la fa ki lay yëkkati soxlawul sax mu lay avertir bu ko neexee mu ñëw yëkkati la le droit de fourrière imposé nañu ñu réquisitionner say bagages yóbbu ko te duñ la ko delloo doo ko jotaat amul da ngay fay amul leneen alors kon ñu comprendre que ne site bi loolu lañ ko def ni ñu ko defee nag am na ay soow parce que biñ demee ba xam ne affaire bi dafa a baax nar rafet. Euh, ñi nga xam ne dañoo bañoon rejoindre bugg a daw si fii ñëw ne dañuy ñëw parce que dañu war a bindu journalisme fekk na liste bi bloqué nañ bouclé nañ ko fees na te taxul aussi ñu bàyyi waat leen ci mbedd bi. seen xaalis ñii leb banque euh, baal ma ci publicité bi ñii dem PAMECAS jël xaalis investir mais après bi ngeen defaatee aménagement bu bees ñoom ñëpp donc dañu fekkoon ñu investir alal bu bari ak yooyu te léegi ñooñu nan ngeen nar a def ak ñooñu. Euh, te defe naa ne ñoom lañ defoon. ñu leen ci bàyyi woon defe naa ne mooy gën a yées parce que xam nga zone bi zone ndox la bien que xalaatoon nañ nan la ñuy def pour service technique yi accompagner leen jëloon nañ disposition yëpp pour que bu tawee service technique ñoo di leen accompagner maintenant defal nañ ko ay voies yoo xam ne euh, c'est bétonné dañu leen defal ay stand yow da nga defoon zeng ay zeng rek da nga fa nekkoon ah daaj ay bant ay bant ron ron mooy yi nga xam ne mooy màng yi alors yooyu ñoo fa nekkoon mais actuellement boo demee ci site bi comme ko gisee euh, fer lañ ko def ay tube en fer def ko ak euh, cadrage boo xam ne c'est en tôle montel la sa éclairage montel la lépp defe naa ne euh, am loolu moo gën la nga investiroon voilà parce que di nga nekkaat li nga nekkoon raam la woon ba keroog ñun ñuy am partenaire bu liggéey ak ñun finalement ñu ne la dindil loolu parce que ku nekkoon si néeg boo xam ne seng la bu tawee mun na sax ngelaw bu ngand ñëw buddi ko yóbbu ko mën na am tamit nga nekk ci taw bi mu yàq sa marchandise nga toog naaj bi di la sonal ndax tàngoor beeg yeneen nga nekk si coono ndox di paccax paccax yi defe naa nit bu ñëwee ne la ah nga baal ma damaa bëggoon ñëw tabaxal la sa kër defaral la ko ba mu rafet nga mun a dugg si néeg boo xam ne wax dëgg yàlla buy taw dangay nekk à l'aise naaj la sonal soo dee nit defe naa loolu doo ko wax mu jëm ko ne sama sama sama seng beeg sama lii moo ma gënal voilà donc ça aussi ñu bàyyi ci xel maa mauvaise information la parce que ñi nga xam ne mënatuñu jot te bañoon a ñëw il faut ñu jéem a yàq loolu il faut si attendre mais li si am solo rek mooy li ñuy wax weddi gis bokkul ci euh, projet bi mu ngi en léegi tey mu aboutir su paree bañ teg ci suñ bët ñun ñëpp danañ xam te ñooñu di wax ñu si bari ñu ngi ñëw fii di demander à que ñu dugal leen mais li ci fees na quand même on est désolé. projet bi am na am na délai quoi am na date boo xamante ne tey jii joxe ngeen leen ne leen lii kat bu yegsee fii dana fekk lépp yàmb. waaw maire avait demandé à que bu mu bu mu mot weer mais dañu nekk période hivernage. nga xam ne nit ñi bu ñuy liggéey euh, il faut que ñu naxante ak euh, ndox mi naxante ak taw bi pour mun a liggéey liñ bëgg liggéey parce que tamit euh, li nga war a defar defar bi war na mun a mel melokaan boo xam ne soo ko defaree ba teg ko ke fay dugg du toogaat di amaat ay souci voilà donc loolu moom moo tax xaj na peut-être mu durée bi dina dépasser un mois mais je pense que phase bu njëkk bi pare nañ ko moo doon def voie yi li ci des mooy ñi war a installer stan yi ñoom ñu ngi ci liggéey bi actuellement. mbokk xaritu internet yi donc ki dalaloon tey ma fàttali ko mooy responsable des équipements marchands et des recettes mu nekk euh, koo xamante ne ku am taxawaay bu rafet. et puis nekk jàmbaar nekk liggéeykat souvent dañ koy gis sur le terrain muy def liggéey bu am solo mais xam leen ni liggéey moo ko laaj donc dara ko mooy vraiment euh, def liggéey bu mucc ci li nga xamante ne moom lay dëkk mais tey Baba Diack ak lan mooy jàppal ma jàpp aussi tamit ak lan vraiment mooy programme bi nga xamante ne mooy euh, jàppal ma jàpp ci deux ans yi nga xamante ne nii tey euh, moom moo desee ci seen premier mandat. xam nga monsieur le maire programme am lay déroulé boo jëlee tey programme am nga xoolaat. nga xool fii sëriñ bu toll nga xool programme bi di nga gis ne sëriñ programme ba mu waxoon nit ñi ci campagne am si programme boobu la nekk déroulé mais daf ne fii ba mille 2030 waxul ne dans cinq ans ma réglé affaire bi programme bi fii ba 2030 la si bind ak bu nekkee moom moo continuer amaana mun na am chance mun nañ am chance ñun Kaolack ah parce que ñun ñooy am chance ñu atteindre objectif am su fekkee continuer wul ki fi ñëw bu gisee liggéey ba mu liggéey mu bàyyee ko programme bi moom mu àggale ko loolu moo nekk objectifu sëriñ alors euh, li nga xam ne moom mooy euh, programme mu jàppal ma jàpp bi eh, barki démb ñu ngi doon def la journée de la l'arbre mais sëriñ nekkoon na ci avant demoon na sax bay def euh, benn concours boo xam daf ko tegal quartier yi mu ne rue si quartier bu nekk rue bu defar sa quartier sa rue aménagé ko ak ay arbre ba mu réussir moom dina fa ñëw def fa visite ñëw defal leen benn visite spéciale indi cadeau waa waa waa quartier boobu noonu donc nga xam ne nekkoon na ci yàgg na lancé woon na ko ba ci mairie bi la njëkkee defoon lancement bi planté fi ay ay ay arbre donc chaque fois mu ngi waxtaan ci commission environnement ngir ñu mun a def liggéey boobu te ñoom ñu ngi ci woon di liggéey moo tax nga xam ne nekkoon na si lu yàgg alors loolu nag si programme mu jàppal ma jàpp la nekk parce que boo nekkee ci gox nga bëggu participer euh, li nga xam ne moom la président américain bi waxoon américain yi bu leen xool lan la seen réew war a def pour yéen mais yéen lan ngeen war a def pour seen réew loolu la doxoon ndaw américains yi fii tamit c'est pareil sëriñ si concept boobu aussi daf si ñëwaat mu gis ne soo xoolee kilifa diine yi fi jaar li ñuy wax toujours mooy euh, ñaq jëriñu waaw donc sëriñ jël concept yooyu boole ko ndax moom dafa jaar ci daara gisul ndey gisul bàyyi mu nekk ci daara ja di défendre boppam ci la muy jàng di góor góorlu di jàng di nekk aussi di lekk ca la mu fay fekk kon dafay bugg invité ñëpp ñu mun a dem ci concept boo xam ne nii sama buntu kër bu tilimee ma def suma mbalit génnee du ma xaar mbaa mairie mu ñëw bale naa bale su ma balee ba pare woo mairie ne ko ah man de am naa fi mbalit boo xam ne attanu ma ko est ce que doole ñu dimbale luñ ko buubee mairie ñëw jël buubal la sama kanaal bu fekkee dafa fat ma abu mairie bagage matériel su ma abalee matériel bi mu ñëw boole ma ak waa euh, Sonaget abal ma ñaari élément mbala ñett ñu ñëw accompagner la ngeen curé seen canal génnee soo leen paree ba mu set ngeen génnee teg ko bàyyi ko mu wow Sonaged ñëw buubal la mairie jël matériel bi abalaat ko keneen. dem na ba dafa dote sax quartier yi ay brouette ak ay pompe pour permettre leen ñu mun a am tuuti lu ñu démarrer mais ça veut pas ne bu la ko joxee yow quartier bi nga gar góor góorgóorlu ñaari brouette bu la ko sëriñ joxee jox la benn pompe xaj na attanul quartier bi mais wan na la yoon wi na benn kër gu nekk def 100 francs su kër gu nekk defee 100 si benn quartier boo xam ne am na 1000 maisons. mais mun na génne au moins cinq ou six brouettes ak ay râteaux ñu jël ko teg ko à la disposition di quartier communauté bi fa nekk ak commission beeg jeunes yeeg ASC yi warul nekk football rek moo war a nekk suñu jobkaay warul nekk ne am handball kese war a nekk toog ci grand place. c'est vrai que yàlla def na quartier yu bëri loolu moo fa nekk jeunes yi dañuy mobiliser wu toujours di jóg di créer ay association loolu ñuy def nag il faut que ñu ñëw vers la mairie ñëw wax ne leen lii lañ soxla dañu war a def tey lii lañ war a def mairie jóg indi la apport am moo waral mu jël six cent et quelques millions jënd ko ay matériel teg ko quartier bu ci soxla nga ñëw def sa demande fi mu war a jaar ci logistique ñu xool ko accompagner la ñëw defaral la suñu la defaralee ba lépp normal parce que yow quartier bi soo jógee ne man bëgg naa su may ndaw taxaw nañ ñëpp bu ma doon parce que dafa rëy Sonaged bu jëlee dix éléments indi leen si quartier ci benn mbedd dañuy yem yendu fa mënuñ ko mais bu quartier bi yëpp buuboo def benn mobilisation sociale ñëpp génn ensemble mairie accompagner leen au partenaire am Sonaged ñëpp ñëw au beneen partenaire bi deewoo ñëpp ñëw ensemble ñu travailler defar la ñu war a defar suñu quartier sëriñ foofu lay ooyee nit ñi. ba ci aménagement marché bi on a rencontré quelques commerçants yoo xam ne nit ñi dañoo tegoon ay palace seen kanam euh, li mel ni euh, daam juuf ak euh, bâtiment bu ngand boobu kilifa waa kër kilifa di tabax ñoom jël nañ décision ne dañuy pavé seen mbedd bi ñun dañoo dem seetiwaat ma seeti ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nekk ci ruq kii de moom nee li nekk diggante miiram bi yëpp da koy pavé est-ce que yéen mënu leen fexe ngeen def ku nekk pavé ba ci moitié mbedd bi kee ñëw fekk sa morom keneen ki fekk mbedd bi mot parce que mairie mu ngi bëgg a pavé rue d'Alwa léegi mu démarré pavé aussi euh, mbedd ICNC bi mu mu pavé ko léegi ñu nekk ci ruq yi te di fa jaay nañ def contribution participer moo xam banque la moo xam commercant la moo xam euh, entreprise bu mu doon nañ fexe ñu contribuer ci li bi def gestion participative boobu noonu moom la mairie di oo nit ñi ci jàppal ma jàpp loolu mooy projet sëriñ bi concept boobu bu ko kenn ku nekk dundee comme ni ñu dundee ci kër bokk nekk ndey ak bàyyi tëdd ci benn lal yeewu bu ko sol yére xool sama yére bi sol naa ko ñetti fan jël sama bu frère bi sol ko moom it xaj na fa mu doon dem yére bi miin nañ ko mu jël sama bos sol dem je pense que noonu la ñu war a dundee fii en famille. parce que sëriñ euh, depuis mu nekk si euh, activités yi nga xam ne mooy mouvement bi mu euh, demul si côté kujje d'abord politigul euh, boo leen ko xoolee li muy liggéey yëpp biñ ñëwee mu dem campagne nii bañ na ko ba àndul la kenn dafa àndal boppam parce que bañ a ànd ak beneen groupe boo xam ne dafa nekk ci euh, image politique moo waral moom nangul àndal kenn amul proposition bu mu si jotul nag mais dafa demal boppam te position bi mu am c'est rare nga gis ku mel ni moom en moins de cinq mois nga dugg ci euh, campagne électorale nga dem ci position boobu muy dixième c'est alors mais lam ci jublu woon mooy amoon na objectif mu def ko mais naa nag euh, actuellement il y a un nouveau régime te defe naa ne c'est les premiers partenaires de la commune de Kaolack te ñoom philosophie bi ñu am ñëpp gis nañ ko mooy amuñu benn appartenance politique si li nga xam ne mooy gestion réew bi li ñu gëm rek mooy nañ liggéey nit ñi jàpp ci liggéey bi ñuy liggéey bañ a nekk di wax te jéem a xool nu ñuy jëfee alors loolu nag ah nit ñi nga xam ne dañoo am esprit politique bu ñu la gisee ngay dem ci démarche bu mel noonu te fekk noonu lañ doon doxee dañuy foog ne yow dañ doon doxee ngay doxee moo waral nga naan jàppal ma jàpp et alors que jàppal ma jàpp du fi mos a jógee l'islam moo ko fi indi yonent bi sallallahu salaam ba mu jógee si xare ba ba yegsi ñëw egsi am ñoo xam ne bi ñu ñëwee amuñu fu ñu dal dañu wax ak julli di ne leen ku ci nekk sa kër boo amee ñaari néeg sédd la keneen ba ci soxna yi sax daf leen wax ne leen ñeneen ñi neen ñi nañ séddoo seen soxna yi amul soxna kon nga xam ne ndimbal boobu du fi mos sa jóge te loolu la ñuy def appel nit ñi te maa ngi rafetlu euh, concept boobu nouveau gouvernement bi jël du ma wax euh, ci politique parce que amu fi ku jë mënagul fi am koo xam ne mu ngi door a def même pas 4 mois euh, defe naa ne li ko desee pour ñu mun a am résultat barina trop te alhamdulilah li ñu gisagum dal na xel donc gisaguma loolu daal lu fi nekk si kujje mooy jeune start-up yi jeune entrepreneur yi nga xamante ne tey ñu ngi fii euh, ci Kaolack donc déggaguñu benn annonce wala benn activité boo xamante ne nii dafa jëm ci ñoom donc naam sax gis nañ domi Textica bi nga xamante ne nii Serigne annoncé na ko donc mu war a jël ci ay emploi lu toll ni deux mille direct deux mille cent indirect tey jii euh, su ma la laajee lan mooy seen politique de jeunesse wala est-ce que am ngeen programme boo xamante ni pour les jeunes entrepreneurs yi nga xam ne ñu ngi Kaolack au moins ñu sentir seen bopp ci mairie bi sentir seen bopp aussi ci li nga xamante ne mooy seen seen seen seen doxalin ci mairie bi. en fait euh, point boobu nga laal sax dafa dafa dafa am solo parce que vous savez que ne le maire dafa am benn euh, stratégie bu mettre récemment rek mu ngi koy réveillé waat que start bi les jeunes yi nga xam ne dañoo am projet te kenn xamul foo jëm. amuloo orientation déjà mu ngi metre benn bureau fii au niveau de la mairie pour que jeunes yooyu ñu informer les délégués de quartier informer les structures de base ku ci am jeune entrepreneur bu taxaw am bala jeune boo xam ne bëgg na créer projet te amul orientation nañ ko yebal mu ñëw fii ci bureau bi bu ñëwee bureau bi dina ko recevoir dana ko orienté bu yoree projet dinañ ko accompagner danañ ko orienté ba mun a xam nu muy réussir projet ba pare defal ko suivi le maire programme boobu mu ngi ci déjà mu ngi ci dèjà am na équipe bu mu sant liggéey bi ñu ngi ci nekk di ci dox leneen di mooy doomi Texca nag moom maîtriser wu ma créé bu baax ay ay ay ay programme parce que euh, beneen service la bu nekkul ci mairie bi waa juste rek xam nañ ne moo ko moom euh, ñu ko si encouragé di ko félicité parce que alalu Saalum la du ma ne alalu Kaolack la mais dama naan alalu Saalum la te wax dëgg yàlla Sénégal yëpp ñoo si nar a bénéficié ak àdduna bi c'est un projet bu euh, xam ne nit ñi nañ si jàpp produit yi mu war a génnee ne nit ñi fexe commencé def consommation locale boobu noonu nañ jël suñu produit yi nekk suñu usine bi je fais appel à toute la population de du Saloum nañ fexe et du Sénégal encore en général ñu fexe jàppale suñu société yi euh, récemment Setexca mu ngi fi woon Sodiba mu ngi fi woon euh, Sénémbal mu ngi fi woon ak yeneen entreprise ñu si bëri tëj nañ li ko waral tëj ba ci ICNC bii tëj na te li leen waral mooy dañ dem ba ñun ñi nga xam ne ñoo moom loolu di ko produire duñ ko consommer une fois mos nañ ma wax euh, si sa texte ka que ne dañuy jël tissu yi nga xam ne mooy jiin yi ñuy sol nii jaay tissu bi fii extérieur mu am ay européens yu ko jënd si suñ ko jëndee jël ko yóbbu ko ñaw ko def ko ay jiin def ci seen ay marque indiwaat ko ñun ñu koy jëndaat di ko sol ba ci t-shirt yeeg yëpp c'est si usine bi lañ ma ko expliquer woon tey produit yi nii. commande yi dina dem fu nekk nag ci àdduna bi mais dinañ toogaat ba kenn tukki fi sous région bi benn dëkk mbala dem benn dëkk fekk fa bu affaire bu rafet nga jënd ko ñëw ba fii fekk na yaa ngi ko bàyyi sa biir sa wét kon donc balaay loolu di am nañ jël ñu consommer li nekk suñu dëkk jàppale entreprise bi pour que 2000 emplois yam fa def mën a continuer di exister tëj ba reyoon entreprise bi bu mu ko reyati ndax li koy rey rek mooy tant que ñu ngi jëli di jëli di sol duñ sol commerçant yi jënd fii it di dem di di jënd feneen mais am nga droit commander sa design usine la sist nga demal si usine bi nga ne ko modèle bi laa bëgg nga defaral ma mu wax xool xool bu ko mënee produire mu produire la nga jël ko jaayaat ko fii ci biir Kaolack du génn sax balaa moo génn Kaolack nga jaayaat ko fii xañ na ñu nekk si yeneen régions yi ñooy daw si fii di ko jënd si mais loolu est-ce que du développé Kaolack jeunes yi nga xam ne ñoo nekk programme bi nga wax ni si ñoom mais ñu si ba dañ ciy bénéficier wu donc na si population bi bàyyi xel ci li nga xam ne mooy suñu entreprise yi ak mu nekk bu ndaw mu nekk bu mag nan la ñuy def ba mun see jàpp pour mun leen dimbale nañ ko njëkkee di sol man de bu paree sama yére yi may sol yëpp léegi nañ xam ne si si si yooyu laa koy orienté incha allah. ci question bi nga xamante ne waa Daaru Salaam dañ ma ko yónni yow euh, ci élection yi nga xamante ne nii mooy élection mairie fi passé nga ànd ak ànd nawle liggéey ci liggéey bu am solo vraiment bokk ci ndaw yi nga xamante ne ànd nga ak Serigne Mboup vraiment Serigne am yaakaar ci yow vraiment nga liggéey ci liggéey bu am solo donc ci résultat bi nga xamante ne gagné ngeen ko mooy résultat gagné boo xamante ne bu amul benn werante ci bu musul am wala bu gëj a am sax ci histoire politique Kaolack donc mu am nag ay promesse électorale boo xamante ne nii xëy na peut-être daan nga ànd Serigne ca Daaru Salaam donc ñu doon wax Serigne post de santé la ñu soxla Serigne promettre lañ ko jusqu'à présent yow xëy na peut-être di nga ci mën a indi ay apporter ci ak ay question ay réponse par rapport ak laaj bi nga xamante ne waa Daaru ñu ngi koy laaj te soxla ko lool laajte woon naa ko euh, sa ne ne Balde dama la koy laajaat te xam naa nit maa ngi waaj a janoog euh, Serigne benn interview boo xam ne aussi tamit dina ko ko laaj tey ji euh, lan ngay tontu ci ci ci poste de santé bi nga xamante ne waa gox bi vraiment ña fay yeewoo bari na lool kër yi bari na lool te gox bi aussi nekk gox bu xaw a néew doole te amuñu post de santé santé nekk loo xam ne lu am solo la donc ci ci ci ci réew ci àddina ci nit ñi ci gox donc yan réponse ngay apporter par rapport ak question boobu. am na benn programme bu nekk en cours parce que ñoom déjà. je pense que Nene Balde moom moo ma sa wax ne ma am nañ terrain boo xam ne déjà tegagum nañ ko je pense que bi nga ko inter interrogé wax na la ko. Euh, leneen li mooy dafa am benn poste de santé bu nekk foofu noonu muy poste de santé ndàngaan bi dafa couvrir euh, presque trois quartiers trois quartiers moo leen couvrir muy euh, abattoir ndàngaan Daaru Salaam léegi léeg sax waa ndargu ndaw dañuy ñëw lii te foofu mais mosuma dem ci poste de santé bi fekk mu fees ba tax ñu ne ñi fi nekk xajuñu fi. ndax xam nga euh, day dépendre toujours ci nit euh, feebar dafa am lu koy indi te poste de santé yi c'est les premiers secours ñoom nekkuñ pour jël nit ñi di leen gérer à cent pour cent premier secours la yëg naa sama yaram loo xam ne nii jaaxal na ma damay njëkkee ci ICP bi mu xool ma su ma xoolee bu fekkee ne lu may traité la daf may jox mat faju su fekkee ne nekkul lu mu mun a traité hôpital am si cër mu bindal ma référence ma dem hôpital mu mottali moo waral doo ñëw poste de santé fekk ko mu fees ñun depuis ñu juddu ci koñ boobu muy nangaan foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo foofu la suñu famille nekk foofu lañ xam euh, mosuma fàttaleku ñu ne poste bi daa fees ba ñu ngi yóbbu nit ñi feneen di leen voilà donc cela veut dire que ne nit ñi nii la ñuy def rek va et te actuellement euh, boo jegee ICP bi dina la ko wax amoon na période palu bi xaw a def ay effet ba nga xam ne da ngay gis nit ñi nit ñuy feebaree ci zone bi mais tey jii mbir mi wàññeeku na lool. wàññeeku na lool parce que am na ay mesures yu gars yi def léegi di sensibiliser nit ñi si moustiquaires yi d'ailleurs duñu la ko jaay dañu la koy may bu jotee dañ naan kër gu nekk waxal ñaata lal moo fa nekk ñu jox la nombre de lal yi si moustiquaire pour nga takk alors ku takkul nag xamal ne bul jiñ affaire bi ak kenn leen mbir mi ordinance moo la ciy fekk sonal la leneen li aussi moom mooy euh, li nga xam ne mooy créer euh, palu bi muy feebar bi di ay euh, ndox les eaux stagnantes yenn garab yi bokk na si li nga xam ne dañ koy préparer mairie bi boo xoolee depuis bi ñu installé ba léegi chaque deux ou trois mois mu def pompe dem rey les les les larves en même temps pompe si garab yi def dëkk bi tour bi nga xam ne yow la service d'hygiène toujours day ñëw di jël fii quota bi nga xam ne moom lay jël di chargé li mooy produit yu war a utiliser ànd ak monsieur le maire Mbaye Guèye ak équipe am ñu dem defi poudrage saupoudrage bi donc loolu aussi am na rôle bu mu ci joué alors maintenant nag man li may wax si loolu Euh, c'est vrai que poste baax na parce que poste de santé ndangaan bi ñoo ñëpp foofu la ñuy bugg di dem euh, mais boo fa defee poste tey te dëkk dëkk zone bi lotissé guñ ko intégralement mooy da ngay indiwaat problème parce que fa ngay def post bi rek déjà xamuloo ndax si zone loti lay noonu nga tabax ko après ñu war a lotir war a dégage waat poste bi war ko déplacer waat je pense que la première chose à demander euh, demoon nañ mais dem na fa def les premiers pas pour problème lotissement bi y a une boo xam ne yeneen structure de base ñoo ko war def administrative yi donc loolu lañ ne di bàyyi bañ finaliser ko xaj na peut-être yeneen mun a ñëw parce que tey boo ko defee poste ambulance war a dugg amul fu mu jaar beneen affaire la nga war a indi malaat war ko yóbbu xamoo fu muy jaar beneen affaire la alors mais je pense que maire ni ma ko xamee amul si programme am lu mu ci def bind ko te nekkul di ko suivre mais nañuy bàyyi xel toujours ci kàddoom sama programme 2030 la jëm mais bu ñu ne daf koy def léegi balaay mandaayam di jeex mu jeex parce que déglu naa sa ne deux mois ngeen deux ans ngeen defagum mu desee leen trois ans mais trois ans yi nekkul ne dañuy jàpp lépp mu jeex dinañ def effort ba chaque année ñu mën a def ay pas te boo xoolee année bi passée muy 2022 bi jotuñ ci mën a def dara ci budget jàmbur lañ nekkoon te fekkuñ fi woon lu ko mën a def voilà c'est lay nuyu sant la gërëm la bu baax ci sa disponibilité et puis vraiment ci ni nga nangoo aussi sekk ak ñun waxtaan donc dafay wane rek sa responsabilité aussi ak sa bëgg-bëgg liggéey ak sa bëgg-bëgg Kaolack sa taxawaay bu am solo bi nga xamante ne taxaw nga ko rawatina ci askanu Kaolack mais aussi ci sa liggéey ci wàllu mairie bi donc ak euh, liggéey bu rafet bi nga ciy def sant la gërëm bu baax di fàttale ni yow yaay responsable des équipements marchands et des recettes fii ci mairie donc xanaa di la bàyyi nga tàggatoo rek ak euh, ñu dig dalee ba beneen incha allah bu soobee voilà donc euh, du ma def rek lu dul d' abord remercier la euh, Souleymane yow ak euh, Moustapha sa technicien bi donc si liggéey bu rafet bi ngeen def di féliciter seen télé bi aussi di wax ne vraiment maa ngi suivre seen ay programme maa ngi leen di suivre bu baax di gis yi ngeen di def yëpp alors di remercier monsieur le maire Serigne Boub ak di ko duñ ko remercier sax mais dañ koy gën a encourager si démarche mu nekk parce que il a besoin d' encouragement parce que nit bu nekkee di liggéey tegu ci fa mu a tegu yow même bu nekkee yaa ngi liggéey ak moom te gis ne kii fi muy tegu si yoon bi la nekkul danga koy féliciter mais da koy encourager li nga koy encourager mooy jox ko doole mu gën a ñeme fi mu jëm te xam naa ne euh, xanaa ñàkk ànd ak moom rek mais ku ànd ak moom di nga xam ne kii fi mu jëm ñeme na ko te xam na fa donc euh, liggéey bi nag du yomb parce que di nga gis ñuy galgal mais di gis ñuy apprécier li si des am solo mooy soxlawuñu wuñu ko apprécier soxlawuñu wuñu ko galgal li ñuy intéressé rek mooy fi ñu koy teg ak fañ jëm nañ ko atteindre mooy suñu objectif te fi ñuy li ñuy def na méngoog li nga xam ne moom lañ war a def teg ko ci yoon loolu moo ñu si intéressé di remercier équipe municipale bi parce que aussi liggéey ñuy liggéey boo ko xoolee dafa am ñuy nekk suñu wet di ñu jàppale dafa am ñu ñu collaborer di liggéey en particulier di féliciter euh, le la brigade de surveillance euh, euh, municipale bi nga xam ne Jean Xoba Diop moo fa nekk di ko féliciter bu baax si loolu muy liggéey ak éléments yi mu yëpp xam liggéey bi tamit Euh, dafay xaw a doy waar des fois moo tax il faut que ngay encourager agent yi waaw di remercier population de Kaolack ndax nit ñi ñu ngi ciy jàpp waa ah. ñu ngi ciy jàpp bu baax des fois nga dem mu métti mais da nit jóge fee ñëw leeralaat mbir bi yombalal lay liggéey bi donc di féliciter sama waa équipe bi nga xam ne ñoom laay liggéeyal fii ci côté euh, euh, équipement marchand muy agent recette yi nekk fii ak waa perception municipale di leen di féliciter di euh, remercier équipe boobu dañuy jàppale ci recettes yi en particulier aussi Insa Diouf ak suñu receveur bi nga xam ne depuis mu ñëw ak léegi mu ngi ñuy teg ci yoon bi pour recettes yi gën a booster euh, parce que moom tout le temps dalay oo n'importe quelle heure noo def leen nii parce que li mu bëgg rek mooy ñu def résultat donc di féliciter ñëpp di féliciter le secrétaire général ak sama maire chargé des recettes muy Mbaye Gueye bi ñuy xam ne moom moo ñuy encouragé yëf yi euh, di wax ne li ñuy liggéey nii Kaolack nañ xam ne c'est pour le bien euh, dans le cadre de bien faire pour que Kaolack taxaw léeg-léeg na nit ñi ŋàññuñu ci mbedd bi étiqueté ñu bon étiqueté ñu lu nekk mais baax na la ca am solo rek mooy que dañoo tegu ci yoon bu baax moo tax.